te saa bu nekk dañ gën a yaatal gën ñoo ubbil bunt yi kon xam nañ ne pour ñun lislaam fu mu mënta dugg xëy na ka ko fay dugal moo ko fa mën a dugal waaye l'islam moom mën naa dugg fu ne kon nun ñi nga xam ne ñun la ko yàlla jaarale nu dugal ko fi kon loolu ndam la ci nun ndam la ci jullit yépp sax wante ndam la ci nun ndax waxoon naa sànq fële ne nekkuñu réew mu bari doole ci wàllu alal nekkuñu ko ci wàllu matériel nekku nekkuñu ko ci lu am solo ci wàllu àdduna wante am nañ valeur boo xam ne kooku moo gën a am solo ci ci ci ci ak yokku ndax valeur boobu moo mën a nit tax nit dugg foo xam ne xëy na la ko fa waroon a dugal du doon lu tuuti kon moo dugal fii moo nu mayit ñu def ci lislaam loo xam ne bare nañu nu ci ëppale te defuñu ko ci te loolu ndam la ci lislaam e loolu nag li nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne itam ànd nañ ci mbir mi muy taalibe yi nga xam ne seen comportement ak seenu doxin moo tax lii sax ndax luñ ci bëgg-bëgg ak lu leen sëñ Tuubaa won yoonu yonent bi sallallahu alayhi ak yoon wi sunu boroom rëddal rëddal nu doomu aadama su fekkee ñem wane nañ leneen loo xam ne tax na bu fuñ dem fuñ fa taxawit kenn dutu leen wóolu it kon lii du wéy kon taalibe yi ak jullit yi fi nekkit ñi ngi leen di sant di leen sargal eh, li ci desit mooy ñu ngi sant gouvernement Sénégal ndax yable na fi président yónnee nañu message wax nañu ne mi ngi ñuy mi ngi ñuy encouragé bu baax defe naa ndaw yi mi ngi fi waxoon nañ ne ministre bu fi nekk wante ah, wante euh, Sénat bi tamit Pape Diop Moustapha Diop yabaloon na fi sëriñ Baara Mbacke ak sëriñ Moustapha Diop ki nga xam ne mooy président assemblée nationale di Macky sàll tamit moom itam euh, yable na fi. sëriñ Fadlou Mbacké mu teewal ko fi e, ñu gis ni nag li tax ñu am loolu mooy ñu xam li ko li tax mooy ñun liñ fi taxaw liñ fi wax waxu diine la te buñ ne diine lislaam kenn ku nekk sa fit jóg kon ku ñëw ba fii nga di ko fi waxee ñu nangul la fi lu mat ñaar fukki at kooku la ngay wax xam nañ ne dëppoon na ak li nga xam ne mooy la sunu borom wàcce woon mooy diine ndax diine li tax mu wàcc mooy soowe nit sowe ko mun mu mucc ci àdduna ak alaxira loolu rek moo tax diine jóg waaye leneen raxu ci leneen lu ci rax wala luñ ci dugal nit a ko ci dugal waaye li tax diine jóg mën naa dugg fu ne loolu nag jaxasoo bi ak waxtaan wi ci diggante boroomi xel ndax diine dafay loo xam ne boo ci waxtaan da nga ciy waxtaane xel ak xam-xam waaye doo ci waxtaane xol ak ak ak gis-gis waxtaan ci xol mooy nga jàpp ne ku ci àndut ak yow ku ne rek waratoo war a nekk ak moom waratoo leen a toog sax ndax tooñ na ba noppi diine du lool ndax ki nga xam ne moo nu ko sàkkal sunu borom ngir ñu jaar ci nee na forcé wu ci kenn kum neex nga nekk ci kum nga bàyyi ndax yéen lay defaral kon mu mel ni boroom xel ak boroom xel ñoom rek ñoo ci war a mën a waxtaan moo tax li ñuy wax li ñuy wax dialogue baat bu bu bari la ñuy koy tudd la waaye li li ci ëpp solo mooy borom xel rek ko war a def waaye borom yi xolli kese suñ ko dee def jarul ñu di ci ko tàmbali sax waxuma laa muy àgg. mu mel ne kon e, lislaam may na ku nekk nga xool la nga nekk ci sa pas-pas ndax pas-pas day loo xam ne kenn mënu ko contrôler ci nit yëfi nit ki la moo tax. yonent bi sallallahu alayhi da daan wax boo waxee laa ilaha illallah rek mu ne la génn sa deret kenn waratu ci def dara ndax la ca biir yàlla moo ko xam te wax gi lañ seq ak yow kon mu mel ne mbir la moo xam ne eh, sëñ Tuubaa taxoon na kenn ku nekk mu jàpp ne mu ñaanal sax nit ñëpp yàlla yërëm leen wante mu wane ne ñi nga xam ne nekkuñu ci lañ war a nekkit wala nekkuñu fañ ko war a jaare jaaruñu ko fa wala fañ leen tegoon tegawuñ fa it mu di leen laabire wax na yéen ñi nga xam ne nekku leen ci loolu itam na ngeen nekk koo xam ne yàlla mi leen bind ngeen nekkal ko kon mu mel ne loolu lépp mën naa am wante danoo toll jamono xam wala lu bari ci jamono li ñuy wax ay ay ay inxiraafaat nga xam ne moo di ay dérapage wala ay tatarruf nga xam ne mooy extrémisme nga xam ne mooy benn bi mooy nit ki jaarul fa mu jaar wala mu jaar bu mujj mu tegg génn kooku ñaare la koy tax mu di ko def mooy intérêt personnel am wante intérêt général la nga xam ne lépp looy def bu ca sa njëriñ nekkee yow kese dootoo ca te njëriñul keneen nekku ca doo ca dugg loola ku am ku nekk ku dérapé doo ko ma loolu mooy la koy tax a def la ca desit mooy li ñuy wax ni nifaq boo xam ne chaclier lay doon nga xam ne formel la nit ki di feeñal loo xam ne bokkul ak li ci moom wala daf koy def ngir ñu gis ko rek waaye bokkut ak li nekk ci moom loolu ñaare boot bu fekkente ne dangaa jaar ba jàddit loolu moom da ciy nekk loo xam ne dala ciy yitteel la ca des nag mooy mooy li ñuy wax extrémisme nga xam ne mooy mbir moo xam ne da ngay laal tuuti ca cat la duggoo ca biir te jàpp ne xam nga lépp loolu tam nit dana ko def ci biir diine dana ko def dana nekk ci biir diine ba diine ba noppi sax dana ko def sax ci kaw tariqa muy loo xam ne eh, li koy tax a def bokk na ci bëgg dafa am nit ñoo xam ne wóote rek da leen a neex ak yi ci mbir fu nit ñi jëm ñu jëm fa ca des léeg-léeg dana dugal nit ci nekk ci diine bu mu mujj moom su moo xam sax ci diine bi nga nekk ci ba mujj nga jékki-jékki ber sa yoonu bopp lenn loo xam ne benn la nga ne fukk la lu ne fukk nga ne junni la léeg lu ne junni la nga ne benn la loolu itam dana ko indi la koy indi mooy bëgg a ak nit ñi ak bëgg exagéré ci mbir ndax sa sa feebar la wala sa jikko la eh, la ca des it mooy am na ñoo xam ne tamit ñuy déggee dafa bokkut ak na muy amee seen giseen ci falsafa seen giseen ci dégg ci xalaat it dafa dafa dafa bu tayee ñu mel ne bu ëllëgee ñu mel na ca des loolu tamit dana tax nit am am wala mu gëm-gëm goo xam ne tamit gëm gi limité wul bu tayee nga ne lii la yàlla wax ba ëllëgee nga ne nee la ko waxee waxee ko noonu ndax yonent bi nee la ko waxee loolu lépp dafa am ci diine muy loo xam ne du baree bari ay jafe-jafe la yoo xam ne féeg mi ngi am ci diine wante diine lépp lu ci am tamuy pas-pas bu sell ki ko yor man koo téye man koo dëgëral ci jàngeen wi nga xam ne moom la ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ñu royee ko ci Cheikh Amadou Bamba ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi roy ci yeneen kilifa yoo xam ne ñi ngi roy ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci roy bu rafet loola jafe-jafe mënu caa am dana ca bokkit nit koo xam ne dafa fanatisme nit koo xam ne lu mu nekkul lu mu nekk lu ne ku ca nekkul mu defe nekkuloo ci dara loolu tamit dafa bokk ci loo xam ne bokkul ci bokk na ci extrémisme mooy tax lu baree bare ngay nekk ci mbir mu mujj nga dugal ci loo xam ne bokku ca loolu nag ñaare su amee ci diine la muy jur mooy violence la muy jur mooy euh, euh, lépp képp koo xam ne bokkut ak yow xalaat rek la nga yéene ci moom mooy mu mu faagaagal ko mu jeex mu mel na kon diine dafa bari ay gàllankoor yoo xam ne euh, lu mat a bàyyi xel la loolu diine boobu bàyyi xel loolu yi tamit yemul ci diine ndax boo duggee ci diine ba noppi dugg nga ci mu mel ne kon li ñuy wax tasawuf nga xam ne moo nu fi indi ñu ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba loolu tamit tasaruf mën na cee am ndax weesuwul nekk ci biir mbir moo xam ne ka ca nekk nga xam ne moom nga cay roy gis nga lëm bind wax ko mu lépp ay ci sunna lépp ay ci li nga xam ne mooy alxuraan nga wëlbati ko am ca loo xam ne yow moom nga ca gis moo xam matériel la wala moo xam pouvoir la nga am ko ca wëlbati ko jàpp ne loolu ay caaxaan la ba nit ki lépp lu muy dugg rek war na caa mën a am ay pexe loolu tamit am na ci ci tariixa yépp waaye am na ci itam tariixa bi nga xam ne mooy moom yoonu Cheikh Ahmadou Bamba wi nga xam ne moo doon yeesal yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel na yooyu yépp kon sas la wala xalaat la yoo xam ne war nañ ko mën a bàyyi xel ba lépp loo xam ne bokk ci ñu di ko ci génne ay eh, sañuy bañ nag loolu ñaar yooyu sañuy su ko bañ ci diine ndax dafee nekk sañuy su ko bañ it ci tariixa ndax danga gis ab tare ab yoon woo xam ne ki ko xam ne moo kon moo ca nekk yàllaa ko ñor akub yonentam ak defar ak defar nit nit jaar ca am ca loo xam ne moom la ko ci yëkkate woon mooy xëy na feeñ nga wala matériel ba dem ba ci biir mu dem ba jàpp ne far yëf yi ay pexe lay mën a doon duutu xam loolu loolu lépp li koy ñàkk jom ñàkk xam diine ak ñàkk pas loolu nag su jiitoo ci mbir nga duggee ko ci diine ndax diine ak lu mën di doon fokk nga njëkk teg loo nga xam ne mooy li ñuy wax pas bi leneen loo cee def muy xalaat nga mën ko caa xalaat waaye boo jiitlee xalaat boo xam ne jiituwul pas-pas amu ca wala pas-pas ba dëgërul comme yaag ñëpp mën nga mën naa dem ba dugal la ci loo xam ne dalay far sànq loolu tamit mu ngi am jafe-jafe di di ko am ci tariixa yëpp di ko am rawatina nag tariixa yëpp la wante buñ bàyyi xel na sëñ Touba lépp loo xam ne yonent bi sallallahu mucc ci lépp loo xam ne nit ñu baax ñu mujj ci mucc ñu ci ak ña doon defar moom itam du ko bëgg sax waxuma laa di ko ñaan na nag lu ne fàggoon nag lu ne ña nga xam ne dara la leen ñor rek mooy leen lu luñ dugg lu nekk ñu seet ci seen bu ñu ko gisul jàdd ndax loola moo leen ci dugal loola itamit yàlla na ci yàlla musal kon ngeen ñi ngi jégglu di gërëm ñëpp ndax xëy na ni mu demee la wante euh, ñi ngi gërëm ñi nga xam ne daal yéen président sëñ Mbacke Ndiaye ak mag ñi nga xam ne yéen ànd ñoom ak ndaw yi ñu di leen gërëm danañ ci waxaat danañ jëlaat kàddu gi xëy na bu jeexee buñ bàyyee sunu xarit professeur yi di professeur Khadim Sylla ak professeur Cheikh Euh, euh, baabu mu ñu defal leen seen conférence bi bu ñu noppee xëy na ba noppi jombul ñu tënkaat wax ci wante li am solo ñoo ngi gërëm autorité américaine yi tàmbalee ko ci président bi ndax tamit réew bu fa nekkee njiir la am na ci moo mooy mooy njiir la te ñun amuñu doole ni ma ko waxee sànq waaye lu fi xew yëg nañ ko te am na loo xam ne xëy na bu fekkonte ne neexul lan du ñu demee kon nag autorité yi fi nekk yépp ñoo ngi leen di gërëm di gërëm autorité sénégalaise yi nga xam ne bu ñu ñëw ñoom itam président dañu yebal ay nit ñu di ko fekke si ndax lu ci am solo la loolu ñu di gërëm góor ñi di gërëm jigéen ñi bu ñu dellu si waatee danañ ko gën a yaatal kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu